yafqahu qawli mbokk yi warahmatullahi wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi sant yalla bu baax ci nangu gi nga xamne yalla nangu nako ko suñ ñaan ñu teewoon fi daw ñaanon yalla mu may ñu fekke ko talko ren ñu ngi ni togaat fekke ko te talko moy ne ñaan gi nangu te sant yàlla parce que Baye daan nañu wax ne yàlla bu xasee ba ubbi buntu ñaan li nga ko ñaanoon yëpp la lay may ba may la loo xam ne lay ñaanoo ko parce que mu ne nga ñaan ay ñaan ñu am luñ ca def am lu ñu ca bàyyi mu ne loolu doomi aadama moo koy def ndax li ko waral li koy waral ñaar rek la benn tële liñ la ñaan yëpp mënoo ko wala beneen bi nay mu ne ñaar yooyu yëpp du dal yàlla moo tax yàlla bu xasee bay maye day maye rek comme yàlla may nañ ñu fa ñu teg fekkee ko te tala ko kon xamee nañ ci ne yeneen ñaan yi ñaanoon tamit yàlla nangu na ko waaye yàlla nañ teg suñ bët ah di ndokkeel cheikh baye waaye sax du ma ndokkeel cheikh baye damay ndokkeel cheikh nazir lu tax may ndokkeel Cheikh Nazir mooy ne bàyyi moo ñu jàngaloon ne boroom xam-xam yi dañoo wax ci mujj gu rafet wax yu bari mu ne bi ci gën a siiw mooy ñu ne mujj gu rafet mooy nit ki bi muy wuy ji boromam fekk ko ci melokaane bi nga xam ne moo gën ci melokaane mi mu ne waaye moom bàyyi suñ ko laajoon ne ko loo xam indi indi mu ne moom suñ ko laajoon ne ko looy yokk ci li boroom xam-xam yi wax ci mujj gu rafet mu ne moom dana ci yokk ne bokku na ci màndargaay mujj gu rafet nga liggéey liggéey bu rafet dem waaye bàyyi fi doom yoo xam ne danañ taxaw sa gannaaw ba lépp loo fi bàyyi woon du yem ci ñàkk réer waaye dana yokk kon su fekkee ne lii Cheikh Nazir moo ko sosoon ngir liggéeyal yàlla ngir liggéeyal fayda bi tey tey tey moom su ñëwaatoon gis mbooloo mi dana xam ne mbooloo mi ëpp na mbooloo mi nga xam ne moo fi daan nekk ci jamono kon loolu ci mandargaay mujj gu rafet la te loolu lu lu moom la nit ñëpp di ñaan kon moo tax tey ma ne du ma ndokkeel Cheikh Baye du ma ndokkeel kenn waaye damay ndokkeel Cheikh Nazir bi nga xam ne lii ci mandargaay yàlla nangul ko la ak mandargaay ne moom am na ngërëmal Baye rek kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax tey nag dañ maa waxtaanloo woon ci El Hadj Abdoulaye yaakaar naa ne maam El Hadj leen ci jublu euh, ma bëgg a waxtaan nag waxtaan woo xam ne wala boog man mii sax ku xam sama façon waxtaan dana xam ne du ma ko jaar comme fi nga xam ne foofu lañ ko daan jaar du dafa baaxut waaye damay jéem a indi beneen façon waxtaan boo xam ne képp ku nekk ci jotaay bi moo xam nga jàng araab wala nga jàng leneen lu dul arab wala sa jàng soriwut di nga jot di nga yëg ne waxtaan wi man am naa ci cër parce que déggee naa ci dara parce que du université boo xam ne taarixu Alaaji Abdoulaye ak dundam yaakaar naa ne kenn mënu koo nettali ci at wala sax ñaari at waxatuma laaj nag nga di ko def ci jotaay boo xam ne wat warta bëri parce que gàmmu gaa ngi ñëw kon li xew mooy fexe ba jël ci ay jàngat yoo xam ne danañ ko fàttalikoo man caa roy suñ dund gën a baax suñ digganteeg suñu borom gën a rafet yaakaar naa ne loolu la bu ko defee nag loolu moo tax nag ni ma ko bëgg a indee mooy dama jël benn aaya boo xam ne dama koy jàngagum léegi rek waaye ku déglu waxtaan wi ba ci fin bi da nga xam ne aaya bii ma wax moom mooy temu waxtaan wi te moo diri sembaanam ci lépp loo xam ne moom lañ nar a wax ndax yàlla dafa wax ci alquran ne wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ayyuha nabiyu inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadiran wa daiyan ila llahi bi iznihi wa sirajan munira yow yonent bi man yàlla maa la yónni ngay suma seede loolu baat la boo xam ne bu jar a bàyyi xel la parce que seede ñun ci liñ ko xamee mooy ku war a àtte masalan bu ñu demoon tribunal xaadi bi war a àtte te fekkeewut xew-xew bi ba muy xew ñu oo ñi ko fekkee ñu ñëw seede ñu ne nii la demee woon nii la demee woon mu ne su fekkee ne nii la demee woon de lii mooy àtte bi waaye xaadi bi dafa dafa daf ko fekkeewut moo tax yàlla nag moom dara daf ko réerut dafa fekkee lépp mbiri zikar si kon ci loxoom lañ ko teg soxlawut ku ko seede pour wane ne kii baax na wala kii bon na bëgg nga oo ko laaj waaye loolu li liñ ciy jàngee mooy yàlla dafa daal di commencé jàngale léegi ne moom lu am kilifa ci la ànd kilifa lay laaj kilifa googu mbooloo mu jiite bu kilifa gi ne baax na kooku moo baax kon ñu ngi ciy daal di jàngee ne nit ku amul kilifa boo demee ci kanam yàlla nga am problème parce que yàlla ngi wax ci alquran ne yow mën na too kulla unaasin bi imaamihim bés penci su may oo nit ñi du ma oo nit ñi par benn waaye mbooloo mu nekk ka ko jiite woon laay oo su ma ooyee ka ko jiite woon rek képp ku ci bokkoon daal di topp ca mbir mi kon am kilifa la ñuy déggee ci yàlla na yonent bi yow yaay sama seede ba mu bashiran wa naziran yow yaay bégal nit ñi ci aljanna xemem loo leen ko wax leen luy tax ñu bugg aljanna waaye yaa leen di ragalloo safara yaa leen di wax luy tax ñu ragal safara mu teg ci nag ne wa daayan ilallaahi bi isnihi yow laa sant ngay oote jëmee ci yàlla waaye ci ndigalu yàlla doon naa dégg sama nijaay oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mu ne bi isnihi googu maanaam def gi ko defal ci ndigal moo waral moo indi siraajan muniiran moo moo waral comme li ngay def da nga koo def ci ndigal da ngay mel ni làmp boo xam ne dafay leeral ku la topp rek gis yoon wi nga xam ne fa la war a jaar boo déggee léegi ni yàlla yónni li yàlla présenté yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mooy kilifa gi moom rek lay déglu kum ne moo baax kookoo baax kum ne moo bon kookoo bon moom mooy bégloo nit ñi di leen ñemeloo aljanna di leen ko xamemloo waaye moo leen di ragaloo safara waaye mooy oote jëmee ci yàlla ci ndigalu yàlla waaye mooy lamp bu leer bi nga xam ne mooy leeralal nit ñi fi jëm xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi yàlla joxoñoon loolu bi mu amee ñeent fukki at la ko la ko yàlla soo ko yónnee mu nekk fukki at ak ñett ca Makka di oote ñu di ko lor kenn gëmu ko lu may ñu néew ñu néew doole ñu leen di rey di leen toroxal mu jógee fa dem Madinatu Munawwara fa la diine ji commencé tasaaroo Madinatu Munawwara fukki at la fa am su fekkee ne li yàlla joxoñ yépp ne moom la mooy làmp bi mooy oote jëmee ci yàlla mooy kilifa bi nga xam ne moom la yàlla di déglu te moom daanaka fukki at la fi am ci jëmmu dee kon loolu dañ ci xamee ne foog mu am ñu ko donn di yenu leer googu di ko gàddu di di di ko di ci di ko jottali nit ñi lolu motax yalla wax gannaaw gi ne summa awrasna alkitaba alladhi astafayna min ibadina ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله من لولو نغا خم دي يونت بي وخناكو تي يونت بي دوك دولي فوكي ات تا ماك تا مدي لك دال ديم نيبي وني ني امنا نيو كو ورا دون موتاخ يالا نه gannaaw loolu nag ma jël téere bii nga xam ne mooy alquran ëmb lépp loolu ñuy wax yëpp mu ëmb ko ma donnuloo ko nag ñi nga xam ne man yàlla maa leen tànn ci samay jaar kon ndekete yàlla wane ne na leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy tànn ay jaamam yoo xam ne baatab miraas la tudd maanaam donn kon buñ ne diw dono yonent bi la kon loolu du lu bees duur lu ñu sos mais yàlla ci boppam moo ko wax wane ne yonent bi am na ay dono waxaat na feneen ne al ulamaau warasatul anbiyaay borom xam-xam yi ñoo donn yonent yi waaye yàlla wax fii ne man yàlla am naa nit ñoo xam ne man maa leen di tànnal sama bopp donn loo leen téere bi te mooy ñu donn yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ñooñu nag ñetti xaaj lañ am na ci zaalimun li nafsihi koo xam ne dafay tooñ boppam xam nga tooñ sa bopp mooy lan mooy lépp lu yàlla tere boo koy def xam nga ne lor nga yowal ci sa kaw lay këpp mais du lor yàlla bàyyi moo doon wax ne lépp lu yàlla santaane yow jaam bi balaa nga koy def laajal sa bopp ndax lii ma nar a def am na ci luy jëriñ yàlla walla déet mu ne waaye lépp lu yàlla tere laajal sa bopp balaa nga koy bàyyi ndax lii ma nar a bàyyi est-ce bu ma ko defoon am na ci luy lor yàlla wala déet comme amut ci luy lor yàlla amut ci luy jëriñ yàlla soo defee safaan wala nga def luy lore sa bopp nga tooñ parce que yow sa bopp rek ngay lor moo tax yàlla mu ne fa minhum zalimu li nafsihi waaye wa minhum muqtasidun am na koo xam ne moom dafa digg doomu mi ngi ci diggante bi léeg-léeg mu def lu baax léeg-léeg mu def lu lu lu nu mu tuddati lu safaanoo waaye wa minhum saabiqun bil xayraati bi isnillahi dafay ñëwaat mu ne waaye am na ci ñoo xam ne dañoo jiitu ci bépp xiiw parce que ñoom dañoo ànd ak ndigalul yàlla waaye nag bàyyi mu ne yàlla baax na bam boo jàngee ba ca kanam dafay wax ne jannaatu adnin yadxuluunahaa mooy ne kon yàlla wax na ne ñoom ñëpp yàlla dana leen may aljana waa ànd ak ne yemuñ nag saabiqun bil xayraati bi isnillaahi boobu nag nga xam ne ñoom naka jekk donu yonentu lañ ah borom alquran lañ borom diine lañ borom yiw lañ borom leer lañ saabiqun bil xayraati boobu nga xam ne moo moom moo jiitu ci bépp xiiw ndax ndigalul yàlla lim àndal alaaji abdoulaye moomu ñu nar a waxtaanee def mooy dafay dugg ci ci ñooñu mu diri se mbaadam ci moom lu tax parce que tànn bi nga xam ne moom la yàlla wax ne moom la tànn ay nit de donnaloo leen téere bi dafay ñëw dafay dëggu ci alaaji abdoulaye parce que bàyyi moo nettali ne baayam alaaji abdoulaye lu jiitu euh, Rida moom nga xam ne moo ñëw indi diine dugal ko ci famille Niassène lu jiitu loolu famille Niassène boobu famille Mamalaaji ay nit lañu woon ñoo xam ne yàlla tànnoo na leen déjà def leen ñuy ay buur parce que ñoom buur ba Jolof bi nga bi ñu xam ci senegal ci seen famille doon génnee am na ci maam yi baay ñoo xam ne maam yi Mamalaaji yi ñoo xam ne nekkoon nañ buur lu tax. mooy ne tànn gi commencé na ndax bi nga ñëwee fekk ni ñëpp nga bugg a tànn ñi nga xam ne ñoom ngay euh, jox leer ñoom ngay jox doole ñoom ñoo war a jiite nit ñi nga fekk ñi nga xam ne déjà jiite ne nit ñi ba pare am na jikko yu nekk ci ñoom yu baax ba pare am na préparation pour jiite mbooloo mi ba pare nga tànn leen kon tànn ñëw na waaye Maam Alaaji Abdoulaye moomu ma nga juddoo Jolof moom bàyyi ci boppam gis naa fu mu bind ne ne ne Jolof dafa nekkoon dëkku diine boo xam ne dëkku boo xam ne la naka jekki dañoo fonk diine waaye jikkoy diine yi gën a feeñ ci ñoom mooy maandu tax na ba bi fi colonialiste yi ñëwee tubaab bi France ñëw fi lim bëggoon mooy yàq senegal yàq diine ji toroxal nit ñi waaye Jolof jàpp gim jàpp ci diine ak maandu gim maandu ak yiw gi ñëw tax na yàlla musal na leen ci mboolem pexe yi nga xam ne moom la euh, euh, moom la moom la colonialiste yi ak tubaab yi doon doon doon fexe parce que ku gis maamalaaj yi taxaw bi mu taxaw ci di ci diine ji ak xeex bi mu xeex ak tubaab yi ci ci mboolem façon xeex yi ku gis bàyyi taxaw gi mu taxaw ci diine ji ba tey diine ji nekk ni mu nekkee ci àddina bi yépp waaye ci Afrique ci réewu jullit yépp waaye ak la ca bàyyi liggéey su fekkoon ne tubaab bi xamoon nañ ne teeloon nañoo xam ne euh, jolof foofu mooy nekk euh, fa nga xam ne fala lool di jógee kon xaj na jolof la ñuy gën a songu ci Sénégal moom la ñuy gën a moom la ñuy gën a def euh, seen pexe waaye yàlla nëbb na leen ko ba lu mel ni la daloon yonent yàlla firaw li daloon firaw na ci yonent yàlla Moussa bam ne doom ju dañ ne ko gént gi mu géntoon ñu ne ko safara si jóge ci bani Israël néegi bani Israël ñoo lakk sa nguur gi mooy ne doom joo xam ne dafay juddoo ci bani Israël mooy indi mooy mooy yàq sa nguur gi mu ne ah comme doom ju góor lañ wax léegi li may def mooy doom ju góor juddu rek ma rey ba doom yonent yàlla Moussa juddu xamut ne juddu na ñu nëbbu ko ko yàlla nëbbu ko noonu dafa mel ni lu mel noonu. moo dal tubaab bi ca Jolof ba leen yàlla nëbbee ne leen ki leen nar a sonal ki nar a yàq seen liggéey ki nar a tax li du ngeen du ngeen am ndab ci li ngeen di def Jolof lay juddoo te yéen du ngeen ko xam loolu dafay mel ni dafay delluwaat ci arab yi bi nga xamee ne ni yàlla bugg naa tànn yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga ne daf koo tànn ci arab yi tànn làkku araab tànn xeetu arab yi pour ñu nekk wàccuwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lan arab yi boobu fekkoon na ñoom ñooy kilifa mbaa makka ñoom ñoo nekkoon kilifa arab yi amoon nañ barab boo xam ne arab yëpp dañ fa daan ñëw di fa euh, di fa aj si dégg nga seen dëkk boobu dëkk la boo xam ne arab yëpp a koo xamoon naw ko waaye arab yi tamit nag am na jikko yu bon yu bëri yu ñu amoon mais am na jikko yoo xam ne lislaam daf koo soxla woon benn mooy seen làkk bi li tax yàlla tànn ko mooy fasaaxa gi ci nekk ak yaatu gi yaatu ba mën a ëmb wax yàlla waaye tamit am na jikko yu nekkoon ci arab mooy li ñuy wax teraanga karam mën a joxe teraanga ak i tamit jàmbaar loolu jikko la yoo xam ne soxla woon nañ ko ci koo xam ne dafa nar a jiite mbooloo mi mbooloo mi ki koy jiite dafa war a jàmbaar waaye nag dafa war Euh, am yërmande dafa war a am teraanga mën koo joxe loolu bokk na ci li nga xam ne moo taxoon yàlla tànn leen boo demee ci benn béy ci bàyyi mi ngi wax ne bi afdali ardin xat xalla af afdalu mursalin fii afdali yowmin fastabaana kamaaluhu bi nga xamee ne nii yàlla tànn na suuf si gën a tedd ci suuf si muy wàcc waayu yonent bi sallallahu tànnal ko bés bi nga xam ne moo gën ci bés yi mu juddu ci dégg nga ci lañ xamee ne moom matam lu leer la ku màgg la parce que ci lañ xamee ne moom i tamit kon moo war a nekk ngën ci mbindéef mooy gën ci yonent yi sallallahu alayhi kon yàlla mooy donn loo kon moo tànnoon yonent bi tànn xeetam tànn dëkkam mais ni mu tànnee woon xeetam ak dëkkam tànn ko noonu la tànneewaat tamit bi maam El Hadj Abdoulaye ba indi ko ci ministre léegi nag gannaaw loolu bàyyi nettali ne taarix yëpp nettali ko ne benn arab bu ñuy wax Rida moo jógee woon euh, Libi arab bi lañ wax waaye gëstu yi wane ne ne Libi la ba mu fa jógee ñëw li ko fi indi woon mooy ut ay waxambaane ay borom doole ay xale yoo xam ne danañ ko jàppale ci xare boo xam ne mu ngi ko doon xare ak noonu lislaam yi ñu gañee ko muy ut doole pour ñëw pour taxawal pour doole lislaam kon nga déggee ci tànn bi gis nga ko ni mu demee léegi ñoom ay buur lañu woon waaye maam ji nga xam ne moo nar a ñëw dugal ci ñoom lislaam maam ji nga xam ne moo war a ñëw soppi taarixu ñaseen jëlee ko ci àddina yóbbu ko nag muy mu ñu nekkal yàlla maam jooju yi tamit ci xare la fi la ut ku ko xare la fi ñëwee kon yaa ngi gis préparation bi ni muy ni muy demee looloo tax maam laa ji gannaaw gi jihaad mënutoon a ñàkk a nekk ci li nga xam ne bu def nag liggéey na ko ci lislaam parce que buur dana ànd ak xeex parce que léeg ñu song la léeg-léeg ñu bugg a jël sa réew léeg-léeg yow nga song ngir taxawal dara kon ba pare nag maam ji nga xam ne moo la dikkee ci lislaam maam yooyu tamit maamu xarekat la mujaahid la bu ko defee maam jooju ñëw fi waaye yàlla def lam bëggoon jotu ko jotu koo am mu ne dafa bëgg ñu ne nañ ko may jabar waaye booba gaa ñu ne euh, kii comme arabe la shérif la te duñ toog may ko xale mu xëy war a ñibbi bàyyi ko fi mën naa indi problème boobaa kooku kenn dootu ko ñemee takk ba pare dana indi problème ñu ne kon nañ ko may jay lañees mi nga xam ne moom mag la séentu wuñu woon sax mu am doom def na ba nekk mag amul jëkkër kon kooku suñ ko ko mayee moom dana dana dana baax ci moom waaye kii bu nekkee ak moom ak diir demi tamit du ko wàññi dara parce que fekk na moom mu nekk mag ba pare ñu may ko jay lañees yàlla def ca karaama kooku ñu foogoon ne du am doom foofu la doom jooju juddoo Rida toog ba gis ne moom li mu bëggoon li ko fi indi woon du ko am mu ne leen maa ngi ñibbi waaye sama soxna sii ngeen foogoon ne du am doom yàlla xamal na ma ne ëmb na waaye tamit xamal na ma ne doom ju góor la ëmb te boobu kat ëmb bi soreegul ñoom sax xamuñ ko mu ne leen yàlla xamal na ma ne doom ju góor la ëmb maa ngi ñibbi nag mais kaamil a ngi nii kaamil alquran a ngi nii bés bu sama doom ji màggee ba xàmmee nangeen ko jox téere bi na ko na ko jàng lii mooy li nga xam ne mooy donoy ay maamam lii daa moomu ba màggee doom jooju ba màggee ba xàmmeeku ñu jox ko téere bi mu jàng ko foofu la alquran commencé dugg ci ñese ci famille buur boobu noonu léegi nag leeru alquran ñëw dugg ci ñoom damay faral di dégg ñuy wax ne Euh, sëriñ si borom wilaya yi ñu ci bugg dañuy faral di buggu jabaru ceddo boo ko laajee mag ñi dañ lay wax ne la fu taal xasoon ba nekk taalaat fa dafay yomb foo xam ne dañ fa daan taal toujours di fa togg boo fa buggee taal taal fa dafay yomb kon ñii am na ay euh, mandargaay nguur yu nekkoon ci ñoom moo tax léegi loolu dafay dal di yomb boo indee leer ci ñoom pour dugal ko ci jox alaaji abdoulaye moomu noonu la ay maamam continuer di dond alxuraan waaye booba daanaka xam-xam bi mu ngi yemoon ci jàngu alquran mokkal ko mokkal bu wér xam mboolem ruq-ruqaat yi ci nekk xam konte yi xam baat yi ñaata la xam ko xam bu xam-xam bu xóot a xóot a xóot moom loolu ci lañ doon def amul benn maamam boo xam ne duut ne noonu la mokkalee alquran mokkal boo xam ne mokkal bu jéggi dayoo bi loolu amee nag ñu koy donnoante di ko donnoante ba agsi ci maam Alaaji Abdoulaye moom ci boppam parce que dama koy tëgg bañ mu gudd maam Alaaji moomu fekk na ay maamam jàng alquran mokkal ko moom it mu ñëw jël alquran jàng ko mokkal ko. waaye boobu fekk na xam-xam commencé na dugg ay borom xam-xam ñu nga fa mu commencé nag moom jël xam-xam waaye mamalaaji jàngam lu yéeme la am na noo xam ne sax soo ko ko nettalee xale yi dañuy tayal foog ne maanaam jàng jaru ko parce que yàlla mooy ubbi xolu nit rek def ci xam-xam wala mooy ubbi rek def ci xam-xam waaye mamalaaji Abdoulaye ci boppam dégg naa ci bàyyi mu ne su ma bàyyi daana wax ne jànguma tari feni neen ku ko wax waxoo dëgg kenn mënta tari te jàngu kon jàng na waaye nag ci biir jàng bi yàlla wane na ci barke boo xam ne wane na ne am na leneen lu ca dugg lu mooy loolu ndax maam Alaaji Abdoulaye boobu fekk na xam-xam yaatoo gut am na ay boroom xam-xam waaye boobu yaatoo gut yaatu gi nga xam ne moom la xam-xamu maam Alaaji yaatoo ndax moom maam Alaaji ci gàttal wax na ne Euh, daanaka njàngam ak jàngaleem barke Cheikh Tidiane rek moo ci feeñ ci leeru Cheikh Tidiane ci barkeem ci la amee xam-xam ci la jàngale ndax li ko waral mooy lan boo demee ci téere boobu nga xam ne naar boobu moo ko bind nu xusam mi ngi wax lu doywaar ci jàngam maamalaay ndax maamalaay ci boppam moo ko nettali ne ko bëri na ay téere yoo xam ne téere yu mag yi nga xam ne kàngaamu borom xam-xam yi buñ ci jàngee benn nekk borom xam-xam téere yooyu bëri na ci yoo xam ne maamalaaji yi daanaka kenn jàngalu ko ko wala dañ koy tàmbali rek amut benn téere daal ci téere yu mag yi boo xam ne nit jàngal na ko ko ba mu jeex. lim daan def mooy lu yéeme mooy téere yi nga xam ne dafa am saraa. mom day dal di dem jël téré bi ci bopam mokal yah bi ba pare comme nim mokalé mokkalee alquran mu melni risalatu ibnu ibnu abi zayd al xayrawaani li reey reey rëy rëy maamalaaji daf koy mokal ibnu malik daf koy mokal su ko mokalé ba pare nak dem xol yi nga xamné ño sara affaire ba mu jël sara bi tek di jël baat yi ak ak diko xol ci sara bi diko diko jema jàngal bopam ba mujj gi sharaa bi sax daf koy mokkal xam nga nag loolu lu doy waar la maanaam nit ku jàng tuuti rek ba mën a liir arab matière boo xam ne xamu ko te matière la boo xam ne matière bu yaatoo yaatu la bu rëy la moom mu dem jàng yax bi dem xool ci saraa yi dem xool saraa kële dem xool saraa kële bu déggal ko boppam loolu ku ko jéem keneen doo ko mën mu ne am na téere yu bëri ci téere yu mag yooyu wala boog téere yu mag yooyu yëpp am na ci yoo xam ne sax nijaayam tàmbali na ko ko jàngal waaye àggaliwu ko moom noonu la doon jànge kon wane na ne loolu yëpp yàlla mi waxoon ne man maa am ñu ma tànn donnaloo leen téere bi pour ñu sàmm ko donn googu rek moo ci feeñ dégg ba pare bi maamalaa ji commencé jàngale nee na jàngaleem tamit noonu la bëri na téere yoo xam ne boroom xam-xam yi ñemewuñ koo jàngale lu may ñi nga xam ne ñoo géeju ci fànn booba am na ci téere yoo xam ne yu bëri maamalaa ji jàngale na ko te masta toog ci téere masta toog ci ci ci jàngalekat mu jàngale ko am na ci téere yoo xam ne sax daf koy song di ko jàngale te jàngagut ko ba mu jeex maanaam day xëy xool ko ci guddi gi dem ci saraay xool préparé ko ñëw indi leçon bi jàngale ko mu gën a leer ñi nga xam ne ñoom ñoo géeju woon ci fànn boobu wax nañ ne sax léegi-léegaan mu toog di jàngale ba mu yàgg mu agsi foo xam ne li muy expliquer nit ñi du leer maanaam dafay mel ni dafa xaw a gàtt bu ko defee su demee dem dem ba mu yàgg ba nga xam ne mënatut a dem walla ñi muy waxal ne dégguñ li muy wax mu jël satala gi dem ci wanag wi ñu ne bu demaan ci wanag wi bàyyi xalifa ne ma ngay wax ak Cheikh Tidiane de bu jàppee rek toog ba mu yàgg rek mu ñëw toog ne waaw fu ñu yemoon ñu ne ko nangam rek mu pare mbaa ndax dégg ngeen ñu ne ko est-ce que dégg nañ kay mu ne ah Cheikh Tidiane ko ko jàngal <coughs> kon loolu mbir la gannaaw loolu nag moom maamalaaji mu taxaw nag mu taxawal école boobu nag commencé jàngale ci façon boobu ci barke Cheikh Tidiane mu ne téere yëpp ci barke Cheikh Tidiane rek laa ko jàngee ci barke Cheikh Tidiane laa ko jàngalee bum la nax nag ba tax nga dem foog ne yow da ngay wirdu ji ba tax maanaam da ngay wirdu xam-xam wala da toog ñu solo parce que ndax yow mii ñu war a di jàng xam-xam ci barke Cheikh Tidiane ndax àgg nga ci jàng xam ci barke Cheikh Tidiane parce que loolu tamit martaba la boo xam dañ cay àgg wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim yàlla mu ne ragal leen yàlla bu ngeen ragalee yàlla man yàlla maa leen di jàngal te yàlla nag kum jàngal nga xam ndax moom dafa xam lu ne gannaaw gi nag euh, école am boobu liggéeyu maamalaaji nag kon li ma ci njëkk li ma ci gën a bugg a jàng rek mooy maanaam borom xam-xam yooyu nga xam ne génnee neneen ci école boobu ci barke Cheikh jàng ci barke Cheikh Tidiane jàngale ci barke Cheikh Tidiane ba génnee borom xam-xam yoo xam ne néew na nga fekk leen feneen borom xam-xam yu mag a mag a mag a mag yoo xam ne du rek dañuy mokkal rek di wax di werante di bind ay téere di dagge mais boroom xam-xam yoo xam ne balaa ngay xam ne boroom xam-xam lañ ci seen wax ci seen jëf moo lay njëkk a war ne ay borom xam-xam la waaye nag ay jihaadkat waxuma jihaad nag ci dem ci xare ba waaye jihaad mooy lan mooy. lu melni la oustaz Braham djob don wax mune ba amadou cham biñu jang ci mom nahwu da ngay julli fajar mu commencer di jàngale bañ noddu tousbar mu wóor la ne bam bam bam mu ba mu xëyee ba léegi ñam duggagul ci gi ngir lan jangal gaaw jang lim xam mu jangal ko nit ñi nit ñi jël ko pour mën ko tasaare pour xam-xam tassaro ci mu ne amna jamono man bay bima ma medina buma jangalé lakhdari yu sax ñima jangal duñ am ku len topal duñ am buñ duñ am ku leen waxal li li leeralal li nga xam ne wala bu fàttali leen li ñu man kenn rek maa fi nekkoon jàngalekat di jàngale ba benn bés mu ne bàyyi bi mu firee alxuraanam bu njëkk ba ca kóosi ba pare mu ne dafa feebar feebar bu ko sonal ñu jël ko yóbbu ko ci benn docteur docteur bi bi mu ko xoolee lu mu ko njëkk a wax daf ne ko xanaa yow géwél nga mu ne ko déedéet mu ne ko xanaa avocat nga mu ne ko déedéet mu ne ko li la dal daal moom xam naa ne ñetti yëf rek la moo la ko teg nelaw yu néew ak lekk gu néew ak wax ju bari mu ne ko wax nga dëgg jàngalekat la parce que bàyyi nee na moom ci dundam lépp masta nelaw lu ëpp ñaari waxtu bu te ñaari waxtu yi waxtu yu ñu xam la diggante ñetti waxtu ñeenti waxtu bu ko nelaw rëccee ci ci ñaari ci ci heure boobu du ko fay ci bëccëg bi day bàyyi ba suba mu nelawaat ñaari waxtu mais dundam bi du ci nelaw lu mat ñaari waxtu lu ëpp ñaari waxtu mu ne parce que li ma bëgg liggéey ci àddina bi liggéeyal ko doomi aadama yi temps waxtu bi ma am doyu ma pour liggéey kon bu ma nelawee dafay indi problème dégg de waaye noonu la te kooku ci école maamalaaji li génnee maamalaaji moo ko préparé noonu waaye maamalaaji dafa jur ay doom yoo xam ne dafa mel ni borom euh, wàllu wilaay yonent yi ak nit ñu mag ñi yàgg nañoo bugg ay doom yu leen donn kon bàyyi maa ngi lay ndokkeel parce que donn nga sa bàyyi bu mu waxee bàyyi nag mooy waa kër Nasiru yëpp laa wax Cheikh Abdourahmane a ngi nii mooy seen baay kon dafa mel ni moom ndokkeel gi fi mu ne mën nañ koo jox Cheikh Cheikh Abdourahmane parce que moom moo fi toog toogaayu Cheikh Nasir boo demee ci alquran ban yonent la mu ne rab bi indi inni wahana la azmu minni wastaala rasu shayban walam akum bi duaayika rabbi shaqiya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا to yàlla Zakariya mu ne yow yàlla man day sama yax néew na doole sama bopp bi mi ngi weex tàll ak bejaaw mel ni safara bu tàkk ba ba ba ba doom bi génn tey nag seetlu naa ne musuma am ñaan bu ñàkk nangu ci yow naka jekk da nga may teral li ma ñaan da nga koy def bi yoon nag maa ngi lay ñaan comme àgg naa ci magee sama yax néew na doole sama bopp ba na dénkaane bii nga ma dénk mbóot mii nga ma dénk leer gi nga ma dénk ragal naa ñàkk am ku ma ko dénk suma awras naa ñëwaat na kon dono gi dafay continuer mu ne ko ragal la bugg naa am ku ma ku ko donn waaye nag ki may donn bu ma sañoon mu nekk sama doom du yem ci donn ma waaye mooy donn aalu yàquba yépp kon li ma bëgg a wax fii tey ci kaw minbar bii mooy taalibe bàyyi yi wala taalibe ku mu mënti doon nañ xam ne jabooti baay gi ci lañ bokk ci yëf yi lañ bokk du rekk doom koom doom waaye yonent boobu loolu mu doon ñaan ne may ma man maa ngi ragal li ma yore woon ci ay mbóot mu réer maanaam ñu ñàkk koo donn te pour ma assurer ne donn nañ ko mooy danga may may doom joo xam ne moo may donn man mu ngi mel ni Cheikh Nazir Cheikh Nazir mu doon ñaan ne yàlla may ma doom joo xam ne daf may donn man Cheikh Nazir waaye bokk ci dono yi nga xam ne ñooy donn baay kon loolu dafay wane ne doom yi ku mu mën ci doon koo xam ne dafa yore leer taalibe yi moom soxla na taalibe yi waaye taalibe yi tamit pour sox pour téye dono gi mu wér soxla nañ doom yi tamit xaw ma li ma bëgg wax dégg ngeen ko wala dégg loolu ci la bokk mu ne nag yow yàlla yàlla nga ko def nag muy kuñ gërëm ku am ngërëmaande ku yàlla gërëm waaye ku ay maamam ak ay baayam gërëm waaye ku koo xam ne àddina bi yëpp gërëm nañ la ku àddina bi yëpp gërëm mooy ku jëriñ àddina bi yëpp maamalaa ji continuer yàlla may ko mu donn donn ko waaye bokk na ci lim liggéeyal àddina bi gannaaw boo xamee ne ni jàngal na ñooñu ba génne leen ba pare pour téye leer gi pour sàmm ko kon ñu déggee ci ne mbiram baay mii yi tamit pour sàmm ko niñ koy sàmmee mooy fexe ba jàngal suñu ndaw waaye jàngal leen jàngal bu wër xamal leen kan mooy bàyyi ak fan la jaar ba ak si fii ak lii fu mu ko jëlee ba ak naka la ko téyee ba mën koo ak naka la def ba doon loo ko ñeneen ñun ñu mën a xam ñuy tamit naka la ñuy def ba doon loo ko ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw mais suñ ko xamut ñun mënuñ koo xamal ñeneen ñi mais suñ ko donnuwut mënuñ koo donnuloo ñeneen ñi waaye ba tey doom importance am dafay ñëwaat parce que maamalaa ji moom tamit lu mel noonu daf koo dal mooy bi mu demee moom i tamit ba taxaw ba leer googu yore ko tasaare ku tasaare ko waaye xam na ne doomi aadama mënta ñàkk dee foog jëmmam ji toxu dafa commencé di ñaan yàlla yàlla may ko doom ndax am booba amoon na ay taalibe yu mag yoo xam ne ay kàngam lañ ay borom xam-xam lañ ay ay walliw lañ alaaji mu Abdou Niang rek ku mu nekk sa taalibe kooku beneen affaire waaye terewut mi ngi ñaan doom yoo xam ne daf koy donn kon doom ju donn ak taalibe bu donn ñoom ñaar ñooy ànd pour yëf yi mat mu ne maamalaaji kilifa ànd na ak moom ci aj mu gis ne maam Alaaji xam na nu ñuy ñaanee waaye xam na yi tamit li war a ñaan yàlla lan la waaye surtout boo demee ci barab yi nga xam ne barab yooyu dañoo wax ne barabu nangu ñaan la mu ne ma ma di ko bàyyi xel pour su xool lu muy ñaan mu ne ma ànd ak maam Alaaji ci aj gi aj gi yëpp yëpp yëpp ak makka amaakin yi nga xam ne ci lañu wax ne mooy palaas yi nangu ñaan yëpp yëpp maam alaaji benn ñaan lay ñaan mooy rab lii rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiu du'a waay waay waay yow yàlla yàlla na nga ma may njaboot gu barke njaboot gu tey te yow yàlla yaa may dégg nag te yow yaay nangu ñaan dégg de kon <coughs> kon loolu wane na ne maamalaa ji nettali nañ ne am na benn ay ay nit yoo xam ne ay sëriñ lañ ay dugg ko te xalwa lañ dañoo soxla woon euh, euh, doomi Maba Jaxu Paa Maba Jaxu kii ki ko doon nu mu tuddati Sayid Mati Sayid Mati lañ soxla woon ñëw ba sonn mënuñoo fexe ba jot ko parce que buur neexut a jot am ku leen wax ne dem leen ci Maam Alaaji Abdoulaye su leen demee moom bés bu set Sayid Mati dana ñëw ci moom moom mën na leen a dimbale ba ngeen gis ma ci biñ ñëwee wax ko ne ko dañoo soxla buur bi mu ne leen buur bi damay tafsir alquran te bés bu set dana ñëw fii fekkee si tafsir bi léegi yéen bu ngeen ñëwee danaa leen boole ak moom bi ñu ñëwee mu ñu boole leen ak moom ma ba euh, Saïd Mati defal leen teraanga fajal leen seen soxla defal leen sax loo xam ne fooguñ ko woon bi ñibbi bi ñuy ñibbi ñu jaar ci maam Alaaji Abdoulaye ne ko ñun dañoo bugg nga jël alquran génneel ñu ci bépp bépp baat bu am mul ko ci alquran nga génneel ñu ko ñu duggal la xalwa ñaanal la yàlla nga am doom ju nekk buur mu ne leen man soxlawu mu buur man li ma bëggu mooy ngeen ñaanal ma doom joo xam ne dafay doonu Seex Tijaan ñu dugg xalwa dugg xalwa dugg xalwa génn na ko waaw ñu dey yàlla wan nañu ci suñ xalwa ji doom joo xam ne dana daj àddina ci xam-xamam ak mbaaxam ak yiwam mu ne déedéet man bëgguma benn doom sama doom yëpp laa bëgg ñu mel noonu ñu ne ko en tout cas yàlla moom doom jooju moom ci dimension boobu yàlla war nañu ci kenn kon kooku liggéey na ci am doom ju baax li ma bëgg a wax foofu mooy kon déggee nga ci ne liggéeyal baay ak liggéeyal fayda bi ak liggéeyal diina ji bokk na ci nga fexe ba li nga nekk nga yar ci sa doom nàmpatal ko ko ba xamal ko ko ba nga xam ne dana la wóor ne dootu ko rëcc parce que man gis naa fi ay kilifa yu mag a mag a mag yu bugg yu yu jege woon bàyyi yu bàyyi gërëm tey seen njaboot xamuñ sax ne ñoom ay taalibe bàyyi lañu ndax du ma tudd tur waaye kooku toog ci télé bi di wax naa ne sama papa xarit yi bàyyi la woon kooku xamut xamut xamut xamut bàyyam lim sekkoon ak bàyyi parce que du affaire yi xarit affaire yu taalibe la waaye nag comme moom xamu ko xamu loolu nag bokk na ci li nga xam ne moom la moom la ñuy jàngee ci dund maamalaaji ne mo war nañoo moytu mu mu raw ñu mu mu mëccëriñu maamalaaji Abdoulaye dundam mën naa koo tënk ci ne mën nga koo méngaleeg duddi Abdoulaye mi nga xam ne moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax booy jàng ci siira di jàng ci gàmmu yi bu ñu agsee ci ab Abdoulaye bi mu bi mu nekkee waxambaane nekk ci biir Madinatu Munawwara leer gi nekk ci moom ba jigéen ñi topp ko. gannaaw gi dañ ci xamee ne kii bokkoon na mission am mooy ëmbul leer gi téye ko ba boroom leer gi ñëw waaye nag ndekete kii ëmbul leer googu yàlla daf koy tànn ndaxte jàngeen ci siire ñu ne Abdoulaye benn jigéen ñëw na ne ko dama bëgg ànd ak yow benn yoon tëdd ak yow benn yoon jox la téeméeri gëléem xaw ma gëléem boobu lu kuy jar de waaye jamono jii maa ngi laajte gëlëm ñu ne ma gëlëm bi gën a tuuti téeméeri junne lay jar téeméeri junne ba muy ba muy ba muy ba muy ba muy ba muy ba muy téeméer ñaata la bëri na de. loolu benn jigéen pare woon na pour jox ko ala Abdoulaye pour ànd ak moom benn yoon ci ci ci lalam mu ne ko def lu def lu araam dee moom a ko xam nga kon mooy ne yàlla préparé na ko ba mu am jikko boobu. ba am dogu googu am sell googu moo tax mu mérité nekk bàyyi yonent bi sallallahu waaye wa sallam waaye yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ana da'watu abi ibrahim biñ ko laajee ne ko présenté sa bopp daf ne man ñaan gu nangu laa goo xam ne sama maam ibrahim alayhi salaam moo ko doon ñaan moo doon ñaan yàlla génnee ci makka ñoo xam ne dañuy yiwu dañuy yenu leer dañuy jàmm dañuy euh, euh, jiite nit ñi yóbbu leen ci yàlla kon Maam Alaaji tamit bokku na ci lim li liggéeyal xeet wi mooy gannaaw bu mu fi taxawalee li mu fi taxawal ba pare mu gannaaw bu mu jàngalee ay borom xam-xam bàyyi leen fi dafa fexe ba ñaan yàlla di ñaan yàlla ba yàlla may ko ay doom yoo xam ne doom yu jéggi dayoo dañ waaye am na ci koo xam ne moom dafa jéggi àddina bi ba pare nag mu takkaayu nag taxul rek mu ne ñaan ko yàlla ba may ma ko waaye bi ko amee yi tamit dafa jug nag taxaw nag ci doom yooyu di leen jàngal di leen yar di def ci ñoom xam-xam di def ci ñoom leer def ñoom lu nekk jàngal leen préparer leen pour ëllëg ñu mën koo ut moo tax Baye wax na ne ci présenté Mamalaaji mu ne man xaasa walidan lahu bi wali bi walidi أين فروع كفروع والدي من كيب كو خمنا ياغي دكل سا باي اك سما باي من لي مالاي واخ رك موي نغا ما انديل اي دوم يو ملني سما دومي باي باي خليفه رك ميغا خمنا باي خليفه دو رك ميغا خمنا موي تاو ماما لاجي واخوما خم خمم اك ليرام مي من سما ياي موما نتلي نما bi ko bàyyi indee ci ñaseen daf koo jël yóbbu ko ci bàyyi xalifa ne ko kii laa la dénk bu gërëmee gërëm naa su gërëmu gërëm na lépp loo am soxla looy war a wax si wax ko ko mu ne benn bés booba boye ci or moo xew liñ daan wax boye ci or maanaam borom barke yi booba xaalis amu ko doo amoo sa soxna wala koy may xaalis amoo xaalis këyiti xaalis yoo koy may bu dee sa soxna la soo ko gërëmee boyet ci or nga koy may benn boyet boo xam ne benn euh, kees boo xam ne dañ ciy def or benn chaîne ak ay jaaroo ki ay nangam ak nangam mu di ko yóbbu di ko sol dem demee ci xew waaye tamit nag mu nekk loo xam ne am na maanaa ba nga xam ne su amoon soxla bu yàq bu amoon soxla soxla xaalis bu ko demee mën na ko mën na koo weccee def faj ci soxla mu ne boyati or boobu baay indil ko ñu xëy benn bés benn sàcc sàcc ko sàcc lépp muy xaalis bu bari mu ne mu jub soldat lam dem ba bëgg a dem Medina wax bàyyi ne ko sàcc nañ sama or bi mu fàttaliku ne bàyyi daf ne ko woon lépp looy wax wax ko bàyyi xalifa mu ne mu daldi dem rek ci bàyyi xalifa wax ko ko ne ko am na sàcc boo xam ne ñëw na sàcc sama boyatu or bi mu ne bàyyi xalifa dafa jug taxaw daal di binni bindi ba mu yàgg mu ne ko waat naa ci yàlla ne buñ jullee tàkkusaan te jàppuñ sàcc bi ma xe ma ma ma xàcc ci set ja demal nga toog mu ne mu dem toog ñu toog ba mu yàgg rek gendarme yi indi benn waay boo xam ne ngin gi neew lañ ko jàppee ci xam nga ku jógee kaw la sàcc fa daw ba ngin gi neew bu doon jamono bii nii sax dafa yaakaar ne rëcc nga rawatina jamono boobu nga xam ne oto amul leneen lu lay yóbbu ngin gi neew amul te kat sàcc bi leneen lañ ko jàppee woon maanaam beneen sàcc lañ ko jàpp mais ci biir enquête bi ak biir gëstu bi ci lañ demee ba xam ne loolu tamit moo ko sàcc ndax déclaré woon nañ ko ñu indi ko kon kooku kooku ku muy sa taaw kon waxuma xam-xam ba waaye wilaaya ga mat na jokk gi ci Cheikh Diagne mat na te nag doomam yépp maa ngi doon dégg bàyyi mu ne doomi maamalaaji yi amut amut frontière koo ci laal rek ilimaan la boo soxlaa ilimaan ku la koo xëcc rek mu mat mu nekk ilimaan nga dem ci baalaaji Babacar jaar ci alaaji Mouhamad Zeynab ba ci Serigne Mbaye ak ñoom ñëpp Cheikh Tidiane mi daan wax ne ñu ne ko Cheikh Khalil mu ne eh, man duma ma Cheikh Khalil lépp laa lépp luy xam-xam ci diine rek Cheikh laa ci lu tax ngeen may wax Cheikh Khalil kooku loolu la fi liggéeyal attelé gannaaw loolu nag mu daal di jël nag tariqa tijaan indi ñu doon nu wut ko ci ay maamam parce que maamam ay buur lañ maamam bii jógee li bi euh, alquran ko indil ak xam-xamu diine waaye moom gannaaw bu mu doonoo nguuram ga gannaaw bu mu doonoo xam-xamu diine ba dafa ne man ba léegi doyluwuma su ma itte ak sama pas-pas ak fa ma bëgg dem ak àddina bi soxla naa leneen loo xam ne dafay ñëw yokku ci yokk ci leer gën maa gën maa gën maa dooleel muy xool li koy yokku lan la xool xool gis ne tariqa tijaan mii moom rek moo ko mën a jox courant bi nga xam ne moom la soxla pour mën a dawal machine bi nga xam ne moom la bëgg a dawal mu daal di jàpp ci tariqa waaye tariqa tijaan bi tamit gis nga ni mu ko defee dafa dem ci ñi nga xam ne ci jamono ñoo yore woon tariqa bi ci jamono boobu mu xij ma leen jox leen addiya ñaan leen ñu jox ko tariqa mu jox ko tariqa mu dellu liggéey ba soxla lijaasa loolu am na luñ ci mën a jàngee ci jamono ji parce que maa ngi koy laayee biir muqaddami juzuur xaw mu ñu may dégg wala dégguñ ma ci tariqa bi nit sos jotaay boo xam ne dañ fay wax waxu tariqa ñu wax ba bër set yow mi oote mbooloo mi muqaddam bi wala jiite mbooloo mi waxoo kan mooy sa sëriñ waxoo kan moo la jox lijaasa loolu bokkeewut ak li nga xam ne moom la tariqa bi daan doxe parce que bàyyi bi mu indee kaasiful albas pour dëggal ne moom mooy borom tariqa bi mooy borom mooy borom fayda bi ànd ak ne ne moom nee na Cheikh Tidiane ci boppam moo ko jox ndigal moo ko jox lijaasa directement waaye terewut ut na ay lijaasa ci ay nit ba lijaasa yooyu noonu ëpp na fukk ak nangam mu ngi ko def ci Kaasifal Albas maamalaaji lijaasam yi ñu ngi ko bind ëpp na loolu mi ngi ci te moom it Cheikh ci boppam la doon jëflanteet waaye terewut jaar na ca yoon wa fa mu war a amee lijaasa mu am fa lijaasa waaye maamalaaji itteem ja moom mooy li ñu war a gën a njëkk a jàng ci moom itte ju rëy ak foog ma dem ca kanam ak foog ma jëriñ mbindeef yi loo xam ne kenn mosu leen koo jëriñ ku ma yónent yàlla Muhammad ak loolu moo tax bim bim bim tànnee tariqa bi ne moo ko yokku leer pour mu mën a dem fi mu dem waaye tariqa bi ci senegal yi fi nekk jox nañ ko liñ ko waroon a jox ba foofu lañ mën a em ñoom liñ amoon yëpp jox nañ ko ko ci la takkaayu ci jamono boo xam ne ñu bëri xalaatuñ ko ne mën damay dem Fass parce que faas mu ne fa la nag wa dee boo boo bu nit rayee nag ñuy séddale yàpp bi nga soxla ca dem fañ rayee nag wa moo gën nga dem ci koo xam ne nii dañ koo may ca ndawal ga nga bëgg may la ca mën naa am dana la may waaye du la may lu bëri mu ne naa dem fa nag wa dee du dugg ci dem faasam googu parce que kon dafay gudd fi laay fanaan te dama ko bëggoon a gàttal waaye karaama yu bëri feeñ ci parce que dafa ne man li may uti faas duma ko wax ak doomi adama duma ma kenn ku lii laa soxla damay toog faas rek ba yàlla def ki nga xam ne moo ma ko war a jox yàlla xamal ko ko ci gëstu ci xolam mu ñëw wax ak man mu dem faas rek toog ca zaawiya ba di di di di di di wasifa rek di sikkar àjjuma comme ni mu koy defee ba benn bés rek am ku ñëw ne ko boo boo bu ñu wasifaa ba pare nga dem ca néeg bële ne uyu ji am euh, am na ku lay oo foofu bi ñu weesu ba pare mu dem kooku ne ko yow ki la wax nga ñëw fii ki la oo nga ñëw fii ne la nga ñëw ci man maa la war a jox sa soxla est-ce que xam nga ko mu ne ko ah, man xaw ma ko damaa gis rek mu sol mbubb muy niroog mbub bi waa Fass mbubbi waa zaawiye bi daal gis naa mu sol ko mu ne ko kooku Cheikh Ahmadou Tidiane ci boppam la moo lay yebal ne nga ñëw moo ma wax tamit ne naa la jox li nga doon soxla te li nga soxla wax na ma ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la mi ngi mu soog a ñëw nag ne man nag fi ne bu ma kenn waxati muqaddam parce que weesu naa muqaddam ba mu nekkee Sénégal laa nekkoon muqaddam waaye fi mu ne weesu naa muqaddam léegi xalifa Cheikh Tidiane ci boppam la. tariqa Tidiane moom nga xam ne li wane ne li tax maama laaj tànnal ñu ko. ak def ci itte jooju ba am ci maqaama bu kawe boobu ak sañ-sañ boobu li tax mooy xam na ne amut lu ko gën ndax Baye Niass jox na ko ko. gis naa fu bàyyi bind ne man maam Alaaji Abdoulaye sama baay moo ma jàngal diine xamal ma ko ba suma ku ma ko gën a xam waaye gannaaw gi tamit moo ma jox tariqa tijaan mais waat naa ci yàlla ne li may fonk fonk maam Alaaji ak li ma koy màggal màggal bi ma joxee tariqa bi su ma ko méngalee woon ak li ma jàngal ci sharia mu utee ma sànni ko fële continuer dem dem fële waaye dama koo méngale gis ne amul dara lu ci utee ak sharia lépp sharia moo tax mu téye bàyyi moomu dund na ci tariqa ba génn àddina lim mujj bind ci xalibaam mooy bi tariqa tijaan bii addu alayha binnawaaziji binnawaajisi fa innahu kanzun lil ahyaai wal amwaat taalibe yi wax bi bàyyi mujj wax ak ñoom mooy nangeen jàpp tariqa tijaan te na ngeen ko matt bu baax ak seen bëñ yi nga xam ne moo gën a dëgër ci bëñ yi ndax moom benn euh, trésor la alal ju bëree bëri ji bëri juñ denc la may yu bëri bëri yuñ denc la boo xam ne ñiy dund waaye même ñi dee sax daf leen di amal njëriñ ëllëg ci ci fañ jëm kon loolu mooy mooy mooy mooy affaire bu ko defee nag wax ji fi ba koy fi ba koy euh, xulaasa bi mooy lan mooy ñu xool Maam Alaaji Abdoulaye naka la jëlee tarixa bi ak naka la bañ a doyloo ne foog mu dem fa nag wa dee ba laaj lijaasa ñu jox ko ko waaye lijaasa bi dañ koo tënk mu ne man bëgguma ku ma tënk dem uti lijaasa litlaax ñu ne ko amul ci Sénégal ku la ko mën a jox mu dem Faas bañ jox ko lijaasa bu mag ba ba mu ñëw nekk di xalifa Cheikh Tidiane ba pare nag liggéeyam bi gën a rëy ci liggéey yi bi nga xam ne day des ba bés pénc ci mooy mu pare mu jural ju ñaanal ñaan yàlla ba yàlla may ko doom ju mel ni bàyyi mu yar ko jàngal ko jox ko tariqa tijaan préparé ko tegal ñu ko fi muy ndekete bàyyi bi muy wax naan jàpp leen tariqa tijaan ndax moom euh, trésor la boo xam ne alal la joo xam ne du jeex dañ koy jëriñoo bi ñuy dund bu ñu dee dañ koy jëriñoo ndekete tariqa tijaan boobu ci boppam bàyyi ci bopp boppam ci boppam la doon wax moom alhamdulilah rabbil alamin kon maamalaaji moomu ci gàttal lim liggéeyal doomi aadama bi loolu la waaye gannaaw loolu nag gannaaw bi mu indee tariqa bi indi xam-xam boobu aaya boobu ñu commencé woon waxtaan wi dafay dellu at mooy suma awrasnal kitaaba lazina istafaynaa min ibaadinaa moom it tamit nag comme dañ koo donnuloo woon xam-xam bi donnuloo woon ko euh, leer googu mu sàmm ko ba pare moom it tamit alquran a ngi wax ak moom ne ko gannaaw loolu yow yi tamit nag gannaaw loolu maam Alaaji moom ci boppam moom i tamit fexe ba jël leer googu noonu donnuloo ko ay doomam donnuloo ko ay taalibeem sàmm ko ba jox ko ñi nga xam ne ba bés ji loolu duree kon ci gàttal li ma bëgg a wax mooy fekkee ne li ma wax xaw ma dégg nañ ko xaw ma déggul mais li ma bëgg a wax daal mooy maam Alaaji waxtaan ak waxtaan ci moom ci gàttal mooy maanaam mooy koo xam ne dafa doonu leer sàmm leer ga ba pare yokk ko parce que nguur la doon woon mu gannaaw gi mu jël al mu mu alquran ñëw ci mu jël alquran dugal ko ci biir nguur googu alquran not ko waaye yemu ca xam nga maama laa ji yoon wii mu ñu tànnal dafa di yoon woo xam ne yoon wu day wax yoon yoon wu wu mucc ayib la parce que wax naa la ne buur ak nguur la ta la la doon. gannaaw gi mu donn maam joo xam ne diine lislaam la indi alquran waaye maam ji mujaahid la parce que li bi ba mu fay jógee ñëw fii jihaata ko taxoon a jóg su continuer woon ligne boobu kon mën naa am mu ngi yóbbu lu mel ni la lekk Nigéria ay jihaatkat yoo xam ne heure bu nekk taal réew mi xeex danga rey taal rek la ñuy def kon ba léegi mën naa am sax ñu ay ñun ñëpp duñ juddu parce que mën naa am suñu bàyyi deewoon nañ ca guerre taxut nag geer ñàkk geer ñàkk baax ndax moom ci boppam geeral na boppam waaye nag bi mu demee ba ci kanam daf ne lii dama koo donn waaye nag léegi xaaral nag man ma seet nu ma koy sàmmee ak lu ma koy booleel mu gën a am doole ba nga xam ne dana liggéey te du ànd ak tuur bakkan du ànd ak rey nit du ànd ak tuur bakkan euh, sàmm sànn rey bakkan loolu moo tax mu indi tasawuf indi leer googu nga xam ne moo ci war a dugg leer googu yi tamit mu ne ci tariqa tijaan rek la laa wóolu pour jëlee ko ci mu sàmm ko sàmm ko sàmm ko ba indi ko dénk ko mu ndax nettali dañ ne am na benn bés bàyyi mu ne mi ngi nekk ndaw ñu toog boobu maamalaa ji euh, xeex ak tubaab bi déplacement bi dafa bëri ci la ñëwee woon Gàmbi loolu ba léegi ñu ngi ci ndokkeel gàbbi ndax bañ ko xatalee senegal bugg koo indil problème bi ñoo ko uuf benn yoon mu ñëw fi delluwaat ñu bugg koo indil problème mu dellu siyaat nekk fi bàyyi nee na doomu baayam yi lu dul moom ñi ñi ko dalee ci moom ba ci suuf ñépp Gàmbi la judd te bàyyi sax juddoo na Taïba Niassène waaye ci diggante bi dafa fekk boobu Maam Alaaji delluwaatoon euh, Sénégal mu juddoo fa waaye boobu boobu bu yéexoon tuuti mu juddoo Gàmbi Maam Alaaji moomu nag jël leer googu sàmm ko kon li ma bëgg a wax daal bu tëj wax ji mooy leer gi nim ko sàmmee mooy jël ko xam-xam li am ba pare téye ko waaye seet lépp lu baax loo xam ne bu ko ci boolee mu gën a màgg mu mu boole ko ci looloo tax mu boole ci tariqa tijaan waaye lim njëkk a def gannaaw gi mooy fexe ba am ay doom yoo xam ne xam nga tey bu bindoon ay livre bind ay téere wala mu def lu nekk am na ñeneen ñoo xam ne Cheikh Omar Fouti par exemple non am na ñu bëri ñoo xam ne liñ fi liggéey ci ci àddina bi bari na bëri goo xam ne ba léegi nit ñi xamaguñ ko Cheikh Oumar Fouti même Sénégal ak Gambie gii am na ba léegi ni ñu ko war a xamee dëgg dëgg dëgg xamaguñ ko ndax liggéeyam ni mu rëyee dëgg dëgg ñu bari xamuñ ko. ay maamalaaji yàlla may na ko moom liggéeyam mu bàyyi fi ay nit ñoo xam ne seen taxawaay tax na àddina bi yëpp xam ko àddina bi yëpp xam ko kon xamee nañ ci ne. lii ñu yor li ñuy jàngee ci dund Maam Alaaji mooy lii ñu yor muy dono gi nga xam ne moo jógee ci baay liñ koy njëkk a sàmmee mooy fexe ba jàng ko xam ko fexe ba jub ci waaye fexe ba jëmale ci mbooleem koo xam ne dafay ñëw ci ñun di di ko ci jëlee ci ñun ñu jox ko bu wér bi waaye nag fexe yi tamit ba am ay doom yoo xam ne doom yooyu noonu dañ leen koy donnuloo jàngal leen ko xam leen ko pikiir leen ko ñu téye ko ba nga xam ne du réer maamalaaji mu ne bàyyi mu ne muy jàng ci maamalaaji comme déplacement yi dafa bëri woon mu ne benn bés maamalaaji ne man di jàngale ba mu yàgg mu taxaw ne ah man de man damaa foogoon ne sama déplacement yi jeex na waaye ndekete des na bàyyi mu ne ma wax ci sama xel ne a ah, bàyyi yow ñun sonn nañ trop ci tukki yu bëri yi bii yoon daal booy tukki booy booy toxu yow kenn ay toxu te ci xolam la ko wax mu ne maamalaaji ne tontu ko ne ki wax ki ma tontu ci xolam bu ñemee na wax ci kaw tontu bi ma tontu mu ne ma noppi waxuma dara mu ne maamalaaji ne ko xaw yow mi ma tontu maa ngi lay wax ne la toxu boobu ma nar a toxu wax du man sama jëmm mais bu ëllëgee yow mi yaay yow toxu boobu yow mi yaa koy toxu kon kooku tëbb na ko leer googu mu yor ko téye ko kon daanaka fi mu ne nii boo doon waxtaan ci maamalaaji liggéeyam waxuma yeneen doomam yi waxuma la lim taalif ci téere waxuma la jihaad ji waxuma la nangam mais mën ngaa jël bàyyi rek teg ko ne wane ne maanaam kii résultat bi mu ñu indil mooy bàyyi mii yàlla ah, xam nga xam nga xam nga xam nga bàyyi nag am na nettali boo xam ne moom lay nettali ko loolu sëñ maa yi ci boppam moo ma ko nettali mu ne dafa am benn taalibe ci taalibe bàyyi ku mag xam ne dafa dafa kii dafa fànnaaw rek mu ne daf leen doon wax ne leen ci jamono bàyyi bàyyi mii maam Alaaji juru ko maam Alaaji juru ko de kii maam Alaaji liggéey ba mu liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko di ko di ko di ko di ko fay fay googu la ko fayee bàyyi pour pour wan ko ne ko li nga liggéey rëy na waaye man it danaa la jox loo xam ne lii kenn amu a ah mu ne ñu di ko nettali moom benn bés rek mu ñëw ci bàyyi ne ko waaye yow dégg nga diw diw sàngam li mu wax mun mu bàyyi na ko lan mu nettali ko bàyyi na ko ah xaw ma wax na dëggam déedéet waye kay mu netali na len dafa am benn mama laji tabaski jot mo ci julli yoy la xam tabaski wala korité da kana tabaski la mu ne mu ñawal len ñawal domam yeb ay yere waye bes bi alarba mama laji o len ñom ñep na len pour ngeen baña mer seen yere yi mi ngi ni yeen ñep ñawal na len yere mais ñun wañe seen duñ dalo mbubu alarba motax du ngeen sol seen yere yi tay da ngeen di baye ba suba ngeen sol du ma leen ko jox sax parce que bu ma leen ko joxee ngeen sol mu de ñu génn dem mu oowaat bàyyi mu ñëw mu ne ko yow jëlal sa yére yow bokkoo ci wax jooju bàyyee ko nettali loolu ne ko du la wax nag ne dëgg la ma dëgg waaye loolu rek laa lay wax kon nga déggee ci ne maamalaaji ci boppam doy na ko karaama doy na ko liggéey ci àddina ak àllaaxira doy na ko wane ne am na cër ci yàlla yàlla def ko muy ndab li nga xam ne ci la yàlla nar a yekk bàyyi liggéey boobu di continuer ba heure bi kon damay delluwaat rek ci li ma waxoon ne maa ngi ndokkeel Cheikh Nazir parce que lii yëpp ci dono googa mu doon woon maamalaaji jël euh, mu doon woon ci bàyyi taxawal lii barke boobu ak leer googu ak sukkandiku gi ko sukkandiku ca fa nga xam ne fa la ko war a sukkandiku moo jur yëf yi delluwul gannaaw di gën a mag kon ñu ngi leen di ndokkeel waye nak ñu ngi ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla dëgëral leen sàmm leen waye ñu ngi leen di ñaaxi tamit nak na leen na ngeen bayyi xel ci dembu bayyi xel ci seen maam yi nekkoon ak seen bayyi ak fañ ko jaarale woon adina bi bu mu gudd tank wala mu neex wala mu bari yeneen affaire ba tax ngeen dugal ci leneen lu ci bokk na ngeen continuer ci li ngeen nekkoon jox seen bayyi se cër sen magi sen seen rakki bayyi ngeen jox leen cër bi ngeen leen jox jox ngeen leen ko ngeen sax ci lolu yow mi mag yi tamit nga jiite mbooloo mi tëjee ko rek benn nettali boo xam ne nii sëñ Maahi moo ma ko nettali imaam Assane moo ko ko wax imaam Assane mu ne bi gi yàlla bi yàlla defee moom sëriñ génn àddina moom mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk kilifa kër ga nekk xalifa bi booba yàlla dafa def ci tàmbali ba xaalis bi amutoon mu jafe ci moom lool mu ne benn bés mu xalaat ne fay on jabot gi yëpp ñu ñew mu ne len yeen samay rak ak samay samay samay doomi bay ku ci nek na jël responsabilité samp yor yor yor yaayam mu ne bi mu xalaatee loolu ne ah moom kat maanaam bugg na ko waaye nag comme alal ji comme man-man bi amut yëf yi daal nit dafay maandu wax li nga xam ne moom la man mu daal di dem wax ko yaayam yaay ju baax dafa am solo mu ne bi mu ko nettalee yaayam wax ko loolu ne ko lii laa bëgg yaayam ne ko yaakaaroo yàkket man nag imaam man damaa foogoon ne yow ku ku ku ku ku am xam-xam nga ku xam yàlla la nga waaye nag li nga wax nii daal àndut ak loolu mu ne ko lan la mu ne ko yow da ngaa foog ne sa baay dafa amoon alal ju dul jeex sa baay masta am alal xam nga sa baay ci lan la nekkoon ànd ak nit ñi ngir yàlla yàlla di ko jox wërsëgu jaamu yàlla yi di ko jaarale ci loxoom pour mu jox leen soo comme yaa toog sa place yi bàyyi nekkal àndal ak nit ñi ni sa bàyyi àndee woon ak nit ñi yàlla dana la jox lu ëpp lim ko joxoon parce que mbooloo mi dafa yokk imaam ci boppam mooy nettali ne mu ne gannaaw loolu dem naa ba àgg ci njaboot googu ma doon ragal a yore ba bëgg leen a tasaare mujj gi yor naa ñettam te yëguma ko kon bàyyi man loolu laa lay dénk loolu laay dénk waa Kër برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان